ngi may dégg ñoom yaa ngi may dégg. maa ngi dégg. lan laa la def da nga dégg audio bu ma wax si yow wala vidéo bu ma wax si yow. Kali talaguma si parce que bu ma duggee nga naan maan ay dag ma xeex patati pataal. Kali ma rek talaguma loolu. dama léegi ma ñëw benn problème de famille. waaw dam dam la bëggoon wax len may ma rek. talaguma loolu non xaaral rek. dama rek. xoolal rek man sëgam sama nijaay bi bokk ak sama yaay nday ak baay. foofu moo nàmpa jox sama yaay mu nàmpa mu téye sama yaay di ko wax lu ñaaw. ma yépp yëpp takkul ba ñu taxaw. ma ne bu waxee sa yaay bu waxee sa yaay moom ak sa yaay ñoo bokk nday ak baay. waaw yaa ngi dégg yow dan nga ko. d'accord léegi dégg naa kàddu rafet na jërëjëf. waaw ok man samay dëgg bés bu ne laa lay wax. amoo pour tafi sa nijaay di ko naan nii wala leneen ba naan da dugal sa yaay si vidéo yi gars yi di ko enregistré sa kàddu yaay di dem guerre réseaux sociaux moom yàgg nga dégg ñuy affiché yaay nit ñuy saaga yaay nit da ngay gën a fort xam sa bopp tey ñu affiché sa yaay nga bëgg wane sa faiblesse di jëli sa yaay wala leneen kon doo ma sa guerre ci réseaux sociaux bi yow sa bopp li ma daj ci réseaux sociaux yi lu ñu def sama yaay dajogoo loolu sama yaay ma waxal may ma sa yaay te xaare ko àjjana ci àjjanay firdawsiya may ma rek kali. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. yaay booy. maaleykum salaam yaay booy. masul dugg ci tur nag. <laughs> nga woote rek si téléphone bi noonu kase yi. nañ dugg ci sa tiktok bi di jox ko waaw baax na. yaa booy na dag maa soxla. waaw Lamine Ndiaye daf ne dag maa soxla léegi wali ne dag maa ma don la wo jotuma la legi nak mhm. ma ngi wax ak yow ni legi ma yaa ngi am jam, ma yene ngi ci jàmm. ma ngi sante yalla bu baax. comme nima la ko waxe won ci suba. ma ngi sante yalla bu baax baax. yalla na yàlla ci barke allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ci barke alquran. jeri yal yalla yalla xeb doli inshallah allah. ya rabbal alamin amin. Wow, Malik. Wow, dama la ne mhm. eh, maa la jur mhm. ngay ben dong Ben dong nga Waye ngay ben bu gën fukk ak juroom. man ñi yor jàllu Mangi ñeewu ma ngi sama kaamilo alxuraan bi ma jullee tàkkusaan ba pare laa ko tëj ñii ñii ne daf la soxla may wax ak yow. suba ba léegi may wax ak yow fen si sa kanam. suba ba léegi maa ngi lay woo mënuma fexe ba jot la. waaw boobu. Eh. boobu ah, ah, sa ñoom aji ñoo doon wax ak man. Ah. te aji moo ma njëkk a yee ak meram. ne damay ñaanal Malick sa taan aji si. maa ngi ñaanal ma Malick li ma koy ñaanal ñaanalu ma ko ko tey. Hmm. ndax maag yow ñoo bokk ndey ak baay. dëgg la xam naa ni ah, xam naa ni sonal nañ ko waaye na nga ko wax ko ni ko sa tante aji nee na. Hmm. lépp loo xamee ni yaa ngi koy yónnee sa yaay mi ngi ma ci ah, sa yaay mi ngi ma ciy defal. Hmm. lépp loo xamee ni dugal nga ma ko lekk ma ko lekk ma man kese de man li nga may dugalal man kese mënu ma ko lekk. aji sif tey jii mooy sunu yaay te jigéen mooy yaay mooy sunu mag ndax moo fi sunu yaay moom Amadou mooy sunu mag bu góor toujours lama ma la daan wax wax rek moom tey jii laa ko gën a wax. mooy sunu mag. imaam la imaam la ci dëkk bëgg. dama yàgg wax. ma ni la ma ni la tey laa ko gën a bëgg tey laa ko gën a sopp tey laa ko gën a jàpp ndax ndax koy tàmbeetoo ko jur. ay waay. ñoo bokk benn ndey Malick dama la maa ngi lay sant di la gërëm Malick ngi lay sant di la dama bëgg rek dama bëgg rek ma ngi lay sant di la ndax fi ma la tegoon nga fa hmm. waaw sonaloo benn mbokk ma soo sonal benn mbokk man waxi lu rek def sama famille lu am bokk naa sama famille te yaa am tey jii nag yow yaa ma dooleel ba ba ma mën a continuer ak sama famille ay baax baax li nga li nga may jox barke Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam maa ngi koy bokk sama famille ba léegi. <laughs> Lamine mii ma indil téléphone am weer wu dee nga dugal trois cent mille jox ko mu jox ma Lamine a ngi nii doy na ma seede du ma fen ci kanamam du ma fen ci sa kanam <laughs> trois cent mille yi bu egsee bala a weer bee dee di nga ma dugal dugalaatal beneen cent mille Lamine indil ma. mu nga dugalaat ma yeneen cent mille muy deux cent mille te du bokk ak trois cent yag ma yebal kon weer wu dee presque cinq cent mille yi bu matulee quatre cent cinquante ya dina mat sëg ma di ko bokk ak jaami yàlla yi nag tey laa lay wax nag ndax danga ma naan sama yaay yemale ko ci sa bopp yemale ma ko ci sama bopp de. sama yaay xale bii nga xamante ni xale bii nga xamante ni moo la doon filmé. te xale bi ma doon filme looloo tax maam ñëw ki yaayam. xam naa ko xale bi ma doon filmer ah ba ma njëkkee filmer maa gën a xam ne moom la waaye waaye bëgguma la ko wax. ay ay ndax man xam nga ni sama famille laa bëgg. ay bëgguma la woon wax kan la maa ko gën a xam. laaj nga ma ba sonn ma bañ. kooku yaayam lan laa ko defal ci teraanga fii ci. waa déglu ma ci laa jëm ci laa jëm Malick maamam aji aji si moo ñëw tey nag ne ma waxal lépp. dootuma wax. maamam déglu ma maamam aji. moo ñëw ne ma. Hmm? comme xale bi xamul li Malick defal yaayam. waxal Malick Malick xamul sax xale bi. xamu ko bu mu fiy jóg xale bu ndaw la xamante man woo aji wooma tabara yaayam jooju wooma ma ne ko départal mhm. ki koy jël si ma ne ko départal indil ma ko mhm. bu egsee sama doom dina ko fat comme jëkkëram fay na ay portable mooy mhm. papay caba jóob mii papay caba fay ay portable am ah wallaay ne papay caba jóob dafa fay ay portabalam am ne du jël si yaayu Caba Jóob man maa nga Espagne fekk ma woor dama ne Malick mu ne ma naam ma ni ko eh, dama bëgg tabara mii tabara yaayu Caba Jóob mii nga nga hébergeel ma si sa biir kër gi ndax soo ko jëlulee keneen du ko jël ndax jëkkëram bañ na koo jël papu Caba Jóob bañ na koo jël kon nag jëlil jëli jëli ko mu ñëw nga ni ma sama ya xara ma waxtaan ak soxna ci comme espagnol la xara ñu waxtaan ma la d'accord ak baña d'accord da ngay jëli yaayu ci ba job force mu dugg ci biir kër gi ndax mbokk nday aji si la am ma ak mom ño bokk nday ak bay te lu neex aji neex na ma lu nakari aji nakari ma kon nak force da ngay jël tabara mu ñew malik jëli tabara indi ko ci biir kër gi ba yàgg feeg mom ba yàgg ak mom ci kër gi mo ni ma sama yaay nak xam nga numay def jëkëram jël ko papay Caba Diop foog mu jël soxnaam maa ngi lay yor si sama kër yor fi sama soxna yor fi sama doom ah ba kaña damay woo papay Caba Diop mu ñëw jël si nag euh, euh, euh, yaayam nga woo ko téléphone ba sonn mu fay téléphone am moom Gora Diop. <laughs> wax naa nga woo ko téléphone ba sonn mu fay ay téléphone am. wallaay. nga woo ku ñu naan Yirim Njaay nga woo jot ko. Yirim yow loolu fàtte woon naa ko. man ma fàttewu ma ko maa ngi Espagne yaa ngi ma ko. dëgg woo Yirim Ndiaye ne ko Yirim Ndiaye. Mm. neel góor a Diop papay Caba Diop. su su jël siwul yaayu Caba Diop bii nekk si sama biir kër gi dinaa mm-hmm. ko ko xëy indil ko ko Almeria ga ñu nekkoon ndax ndax ñoo fa fa dëkkandoo woon te falaa ko fekk. dëgg la indiwul indiwul soxnaam ba soxnaam ñëwal boppam. Ah, sama magu yaay indi ko sama yaay di xataraayu ne day dugg si kër gi ba kenn refoulé wul yaayam man maa ko fat kon nak legi nak su ñewul jël si eh, soxna yaayu Thiaba job dina ko ko indil Almeria mu mu xamni yow di ko indi mu soga a nak soga soga soga soog la wo mo la wo telephone mom goor nga ko ah fani yema di la wo oh, nga wandi la wo jël telephone bi sama yaay sonal ma witt ba ma dugal sa soxna si fi ci sama bir kër gi ni nga fogg ne fi kenn dina fi kenn soxnam kenn du fi teyel nit soxnam sama ne sama yaay ak bëgg mbokkam motax ma fat fi yaay ca ba jóob comme tan nak fatna fi yaay ca ba jóob ba heure bi te yow ah, ya ko warona passal mu ñew passalo ko yaayam bi fi ba ñew fi ni yaayam dafa jigeene motax sama yaay di gëna xataraayu kon nak force force eh, ah, ah, malik duñ ko jël ma jël ko ba pare légui nak yow nga ni do jël sa jabar muni wa bi muy ñew bi muy ñëw tàggoo mam lépp man maa ngi toog. ana mbaw mi ko indi woon. mbaw nga ni ko doo déglu. nga ni ko fii doo ko fi yaree. dem la dem. dem moo ko indi woon dem. dem dem. mbaw mbaw keneen ki ma paasaloon la mbaw hébergé woon man ñi ma paasal ci sama famille bëri na man soxloo ma étage paasal sama néegu nday yi ñu dem ñi ma fa paasal ñu dem ñooña kese bu ma ci kenn tabas xoloon sato kon kenn waxatu ko waxatuma te ñoo la ñëkk liggéey. ñi ñi ma njëkk paasal ak ki ma la paasandalool ngeen dem ma passal la passal ka jox argent ta pos ngeen ànd dem. baba Diop kooku maa ngi ma bok nday ak bay koko la Mbaw hébergé won koko la Mbaw hébergé won yaa ngi may deg ma ngi rappeler man defar yow na ngay fàtte waaye man duma faté man defar sama ne sama negu nday ak defar sama negu bay mhm. bu fekke lol rek momay jallale ma xam dina dinaa tituma dara barke alcorane lima ma ci sama negu nday ak sama negu bay yalna yal na la ko yàlla xëpp xëpp ci ay baax baax ci daraja Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mi nga xam ne moom rek laa yaakaar ci barke yaasin wal qur'aan al hakiim innaka la min al mursalin ala siraatin mustaqim tanzilu azizir rahim li yunzira qawman ma unzira abaahum fahum ghaafiluun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum laa yu'minuun fahum laa yu'minuun fahum laa yu'minuun ma lay ñaanal ci barke innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu qawlu ala aksarihim fahum laa yu'minuun man ren man lo narul def sa sama fami yow yow yaayu ci ba jom nga mujjé héberger foofu hmm. xoolal sama fami sama sama fami ku ci ñew ba Europe jaxlé suma la wowe ne la malik jëli nga ni ma sama yaay sama yaay sama yaay lutax may dem di di jëli te yow kenn jappalé wala yow ya daan jappalé te kenn fay lo mané mané la yalla amna fay fatal ma diw nga fat ko ñaata nit nga fat si sa kër go ak li ngay am jabaru espagnol yëpp ñaata nit nga fat ci sa kër. léegi yaay booy seen taawu kër ñaata at la génn Sénégal tukki dem bitim réew ba mu jaaxlee ñu nangu ay këyitam këyitam mu perte ko kenn moo ko dimbali ba mu jotaat ay këyitam. wallaay mu wallaay muy muy muy taaw bu baax si ñun. Ibrahima mooy taaw bu baax si ñun wàllam may la wàllam néegam ci wàllu lu yaas moo ñu may léppam moo nu yërëm. waaw Ibrahima moonu yërëm yërëm temps farma temps farma xam nga ni du wax. ndeysaan temps farma xam nga ni du wax mi ngi nii feebar ah ndax eh, eh, ragal rek ku ko jàpp nii wallaahi waaye eh, sunu taawu kër da feral sunuy rongoñ dalal ñu. may nañu ba pare wàllaam te terewul mën dama jë jëndal temps farma dooleem bëriwul li nga may yónnee ci laa ko jëndal wàllu temps xadis si. wallaay azim. temps xadis si paasal doomam mu dem Europe. ci ndimbalam sunu borom ak yërmandeem kon man bàyyiwuma suma suma famille kooku noonu moo la njëkk a liggéey foofu ki ma ñoo ma fa pasal ñëpp la njëkk a liggéey am nga 11 ans liggéeyuloo ba ma fekk ba nga paasal ma ma ñëw ñëw Europe nekk ci sama alxuraanul karim yaa ma fekk sama kaamilu alxuraan li ma fa doon tëdd ci lal bëriwul Malick xam naa xam li ma doon ñaan te yàlla hmm. mosuma ko tàllal loxo mug ñaan ko mu neenal ma <laughs> ma mani ba ma fa nekkee bala nga fee am 15 jours 15 jours jël nañ la nga liggéey te danga nga wut liggéey ba tàyyi mënoo am. ba léegi maa ma nekk fa rek. ci samay aaya alxuraan. ndeysaan. taalibe euh, euh, euh, taalibe sëñ Babacar Si Maalik yi. Bakarek Daraman borom baax. ñu am yuñ ma jox nag. Mm-hmm. nañ ma de. xam naa ko ma bu baax a baax a baax. ko xam. te ñi ma dëkkal mosuñu ko xam kenn mosu ko xam kenn du ko xam waaye tiimu naa malaat malaat ba tàyyi ci barke alxuraan malaat ba jóg baax na ñi ci biti ñi ngi may jël ñi ci biti ñi ngi may jël may tiimu seen malaat di ñaan seen malaat di jóg waaye rax ñi ngi lay déglu kat mais rax may dégg te ñi ma fi woo ñu ngi may dégg kenn rek a ngi nii toog kenn naa ngi nii toog doomam crise la doon def di daw mu koy dabi bi ma ñëwee ma yem si mu ne ma daw si ruqe ci yow ma yor kaamilu alxuraan. ndeysaan. ma ne ah, lii de tey du ah, lii de du lu may man dara ndax kii di daw di eh, fipp di def lu ne lii mënuma ci dara. Mm-hmm. mu ma alxuraan man na lu ne te sa xol daa rafet ñaanal ruqe ma ñaan li ma taalibe Serigne Babacar Sy jox ëf ko ci ci ci bopp bi mu siggi xëq xëq. ma jox ci auto la ma joxe ñu naan walu yo la am du walu yo lolu kenn musu ko xam ci kër gi kenn musu ko xam ci dama ni tek rek mhm. bo ma ñaanal ma ñaan rek te musu ko ñaan fu mu nangowul hmm. kon nak man dama la ne yalla lu mu wax muñ muñ dama la naan wax samay mbokk kula ci def nga ak mom dina la dina la bayyi wallahi asim la ci togn nga fayu dina la baye ca bobu bobu lolu yàgg na du tay mm-hmm. dañu may sonal man ni gis nga ni ma nekk sama doomu baye sama yaay mo baxone mm-hmm. yàlla fi bi aljana fi dawsiya lima la yare yeb yaroo ko moo def ci man amin ya rabbal alamin wallahi tambe di mam Cheikh Sidi Aleeg mutu fa yàlla na xippee àjjanay fir daw ak bepp julit bu ko fa jito bu ko fek ci barke nabi Mustafa alayhi salatu wassalam ci barke alquran est-ce que Ahmadou Sy mii ay ma wàcce na kaw kër gi pour ma mën a àggali ci kaw dama bëgg a àggali ci kaw déedéet dama ko fa bàyyi sama mag la ñoo bokk lépp dama ko fa bàyyi mu dafa war a wàcc dama war a tabax kër gi ku la téere lépp bàyyi bul toppante bul toppante bul toppante Amadou sama mag la bàyyi ko mais bàyyi ko sama mag la bàyyi man man man xool ba ma fayu xoole maa moom wuy ma ma la wuy ma ma wax la nee barke barke barke alxuraanul karim nga xam ne bar Seydina Mohamed rek laa gëm. su fekkee mos naa taxaw ak sani jaay Amadou. ma ne wuyu ma su fekkee mos naa taxaw ak sani jaay Amadou mu wax. ma saaga ko. yàlla moom wax fanaan guddik tey gi tawul sunu borom. dëgg la. ñi ci kër gi doy nañ ma seede xoolal ba max na ma ci rubaneem man fayal naa ko xaalisu barke alxuraan. wallaay xam mu ba max ma si te matul fukki fan ak juróom. mu ne ma bu root si ma demee ma ne ko ah bàyyil ma root comme yaa ma woon bul ubbi ruba ne. côté yooyu sax bëgguma ci woon dugg. maa ni bàyyil yooyu solo. non kër yëpp am famille. am na ñuy dund lu gën a li may dund. Amadou Amadou. wallaahi topp ma ko ko dara. ay waay wax ke Seydina Mohamed damay julli ba tey nii di ko ñaanal. lii yëpp seytaane moo ñëw rek. ay ay yaay man mosuma mosuma wax ba ma ba ma ma defanteeg mom loolu ci ci kër gi rek. Hmm. te kër gi li nga xamee ni moom laa bëgg jël nii man hmm. maa ko moom jënd sama mak hmm. fay ka ko ba mu mat. maam sama alal. Ibrahima mayaat ma. li ñu Ibra li may sax waaye top mm-hmm. ma ya ko top topp ma ko moo ma war a doole xaalis ak Moustapha mais ma ko toppaaxi yow la may tokku ci sama kay. Li la la wax Waxna la ko wala waxuma la ko damay defal kër gi ba mu bax. defaral kër gi rek ba mu bu bu bu ma jëm xamna may defaral fuma ma jëm sa nijaay Amadou ma bayiko fi ñoo bokku ndey ak bay dara ñoo tekkalé te insha allah yal na ñu yalla na ma yalla may kër Amadou mu xol ba xam man naka lay def ak mom dama am fu ma jëm dama koy baye kër ga maag sama mag bu jigéen ma fi dama koy bayel sama yaay ñaata yoon nga lañu tabax bâtiment bi ñu daanal ko yow bama ka waxe da nga ni ma ko ak sama nijaay sama yaay li nga wax rafet na bu boba ñu ko ak sama nijaay mu dekk yow yow nga yobu sa fama la tabaxal nga dem fama la tabaxal moo tax dama kontaan si yow ndax lu ma bëgg si samay mbokk rek nangul nga ma ko. ba ma la nee defaral boo defaree ba mu pare ñu toogandi. Mm-hmm. bu ñu demee ci kër gi ñu defaral ma bàyyeeg sa eh, sa nijaay Amadou kër gii nga ne ma ay sama yaay yaa baax waay ma ne la noonu mbokk noonu lay defal mbokkam. ba ma gimmee ba léegi ñoom loolu la ñu xam si man ku wax te yàlla tax rek xam nga ne sama alal eh, ci samay doomu baay sama alal ci samay doomu nday yaay booy ku fekk Nabil Moustapha du tuddanteeg man mhm. bi ma ko fekkee ne ko pa Issa pa du ma egg sax ci sant bi ne yarax ñëpp xam nañ ko ma ne ko nee na lu yaas bi dala bëgg a yóbbu te comme xale xale bi dama fekk may jàpp mu laajte ma ne ma sa tan mone moo ne soo yëgee lii soo yëgee lii di nga ko fay sa sa mak lañu bëgg indil convocation man sama mak man munima diw ma fekki ko ba bóoru geej ki amna ko ko fekke won bi koy wax maniko dama la soxlo wuyu mu fogné ne kalamé la koy wax té man duma kalamé dama bayyi rek té yalla rek tax ndax yalla muñ la wax luma wax wax wax wax rek maniko mané dama la soxlo may ma minutes rek ma wax ak mom té soxlo bi intérêt la ñu dem ba ca bop local ba maniko ah diw de daf fi ñew né da nga amé borolu mu ne waa deux cent cinquante mille ma ne ko deux cent cinquante mille yooyu nag xoolal fekk juróomi fan Malick dina ma yónnee xaalis man liggéeyatu ma yaa ma liggéey li may jox rek laay dimbal def def ci samay mbokk ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma waaw loo léegi nag ma ne ko comme day dem gendarmerie loolu sama yaay bu ko fekkee woon du ko nangu kon ma ne du ma ko nangu lu ma Malick dugal dina dina ma dugalal xaalis ma jox la moom xam na la ma teg ca loxoom xam na la ma wax ak paaba ba lépp a sedd guy am fukki fan ak juróom net la ma tëreeru ba waaye loolu yëpp du dara loolu yëpp gërëme naa ko yàlla képp ku bokk ci seedu xeetu biir kër gi ñaata robinet laa ci def léegi biir kër ne juróom benni robinet mi ngi si salle de bi juróom benni robinet ngi si salle de bi du Cheikh maa ngi nii di bu ma bu may jàpp ngeen may fëgg bu may julli ngeen may fëgg yàlla leen fi dugal yàlla mi leen fu dugal xam na lu tax mu dugal leen ci biir kër gi te kër sama kër gi na mu Moustapha laa ko tudde wallahi ku fi def jàmm am jàmm waaye ku fi deful jàmm doo am jàmm man maay xool ba xam ni ñi ma mayul jàmm am ñu jàmm benn yoon ndax ba ñu juddoo ba léegi mosul joteeg ñun mi ngi soog di joteeg ñun te tooñu ñu ko defuñu ko dara. alalu àdduna rek te jarul dara xamul ne xamul ne alal bi lu yàgg yàgg rek moom moo mu mujj ne moom lañ koy bàyyil dem suñu yoon ndax ñaan naa yàlla yàlla may la sa bébét bi mu àgg ak jàmm Malick li nga commencé yàlla na nga ko àggali.